doucement doucement doucement yéen lan moo xew fii ba ci suuf ñoo ngi dégg seen coow li xanaa du réunion rek. ah kay DG suñu problème mooy dañoo xamul ban ndox la ñu a jënd pour événement bi. loolu kay jarul werante bu ngeen bëggee ndox mu am qualité te sell jël leen au Kayar. Oncayaar du moromu benn ndox oyof baax te neex calcium magnésium potassium sulfate chlorure nitrate sodium bicarbonate yépp a daje ci Oncayaar léegi fii ci senegal ku fi amati xew événement bu mu mën a doon Oncayaar ngay jëfandikoo Oncayaar am na ci format yépp 33 centilitres 50 centilitres 1 litre 50 10 litres ba ci bu 19 litres bi lépp nag ci ay njëg yu yomb ak Oncayaar mën ngeen a personnaliser seeni bouteilles ni ngeen ko bëggee entreprise yi kër yi restaurant yi hôtel yi sportif yi ñëpp au Kayar la ñu wax. waay waay directeur yéex ngaa ñëw fan la ñu mën a amee contact au Kayar. loolu kay du problème boo bëggee ay renseignements wala nga bëgg a def ay commandes wooteel ci 78 106 82 82 78 106 82 82. au Kayar l'eau de vie légère. Ah mbokk yi Mi One nag Q8 plus bi système Android 9.0 am écran de pointe de 5,5 pouces appareil photo avant ak arrière puissance su batterie 2800 mAh jël ñaari carte SIM Mi One Q8 plus bi 25000 francs dong lay jar su sa loxo tolluwul foofu ma wax la Mi One Hot 2 système Android 9.0 écran waterdrop di haute définition di HD 6.6 pouces processeur ARM Cortex A7 quad-core am appareil photo 8.0 MP à l'avant 5 MP à l'arrière 16 giga RAM ba nekk 2 à vitesse haute définition ba moom bul laal te say vidéo 4G la koy dawal de batterie ba 3600 milliampère heure 35000 francs dong lay jar waaye nag daj gaa ngi téléphone portable Mi One am système Android 10.0 écran waterdrop écran bi yaatul 13 mégapixels à l'arrière 3 gigas de RAM plus 64 gigas de ROM puissance su batterie ba 4000 milliampères heure appel vidéo ba g haute définition double carte SIM S11 bi day bomb de yaay tànn sa Mi One Mi One S11 Mi One Hot 2 wala plus smartphone Mi One yi dañ ko garantir mois am service après-vente bu gaaw fiable ña nga nekk Grand Yoff janoo ak église Saint-Paul fii ci Ndakaaru suñu numéro téléphone 77 565 66 77 ou le 33 827 37 96 suñu téléphone Miwan yii am na ci suñu distributeur agréé yëpp Miwan mobile des smartphones fiables. bu nawet bi masaana jot tàngaay bi dugg si ñépp a daan jaaxle ndax yooyu bari kenn daawul nelaw nelaw yu neex ci fi jële loolu mooy vite fait bi ñu établissement waa kër Serigne Touba Fall et indil gamme complète la cuuraay bant bu neex lool aay ci ay yoo lool am na vite fait pompe di insecticide boo xam ne foo ko pomp yoo du fa jege weñ du fa jege mbóot du fa jege ginnaaw frotté vite bu yéeme bi lëmbee jamono ndax efficacité am ci coona ci yaram buy metti ak ci ay articulation yu bañ am ngeen léegi crème épilatoire boo xam ne marque vite la crème épilatoire vite fait baax na garanti na wóor na te yomb na établissement waa kër Serigne Touba Fall et frère mi ci gaamu vite fait indi na saabu bu doy waar saabu bi mi ngi tudd savon king savon king mooy saabu bii dundal seen peau di ko protéger di leen jox teint bu rafet foo taxaw di nayi ak a nes-nes savon boobu mooy savon king savon king aloe vera am na savon king anti acné am na savon king anti acné moo ay ci ay picc kanam aay ci peau grasse cuuraayu bant vite fait bii rey yooyu pompe vite fait bi aay ci ay yoo weñ ak mbóot crème épilatoire vite savon king aloe wala anti acné fu ngeen dem ci réew mi am na fa établissement waa kër Serigne Touba Fall et moo ko fi indi seen numéro téléphone 77 555 11 11 77 806 15 19 76 577 06 63 wala 77 488 51 93. بسم الله ينملؤ بلا mbokk yi safaruk daaw gi Optique Vision Plus Sénégal dafa àndoon ak taalibe yi amal des journées de consultation gratuite di bëccëg yuñ leen di seetal seen yaram ci wàllu kër docteur ci lu ngeen dul fay dara ca Masalikul naan ñëpp gisoon ci nag lool seen bopp ren tamit incha allah Vision Plus Sénégal di ko amalaat ngir liggéeyal sëñ bi li ko dalee fanweeri fan ci weeru août ba juróom-ñetti fan ci weeru septembre 2022 lay doon ca Masalikul Jinaan 9 naan ci suba ba juróomi waxtu ngoon ku ci bëgg a bindu wooteel ci 75 442 14 14 daañu la jox bépp leeral boo soxla au Kayar ndox mi neex te sell. Optivision plus Sénégal lunettes partout et pour tous seen marque téléphone yi di Miwan établissement waa kër Serigne Touba Fall frère borom gaamu vite fait bi ñoo leen di may seen émission xalaas. yaa ngeen jëf mbokk yi nuyu leen bu baax a baax rafetlu seen ànd ak programme yu rajo Futur Media di nuyu ñëpp ñi nga xam si waxtu wi saa su jotee rek ñuy ànd ak euh, émission bu mag bi di xalaas di kon émission bi nga xam si daanaka mooy lëñbët lépp lu jëm ci wàllu fait divers fii nii ci rajo Futur Media ñu ci ànd ak ki nga xam si moo koy amal saa su nekk passe partout maa ngi lay nuyuwaat bu baax a baax. jaajëf waay sama waa ji. <laughs> Eh, sëñ Saalum. Badou yëg nga ni léegi moo dajal kër gi. Hmm. waaw waaw. fi mu nii ci plateau bii. Mhm. Alaaji Assane moom fi dese. xaaj Ndiogu ak Babacar Fall. Alaaji Assane dajal kër gi yëpp. boo ko fi andee da koy def penc. ñu toog xalaas xalaas ku fii xalaas bu neex. <laughs> ziar naa sama waa ji. am na trop bokk ak yow plateau bi. jërëjëf di la nuyu di nuyu auditeurs yeeg internet di ziar ñëpp waaw. en tout cas rafetlu na ñun tamit teewaay bi ñu fi teew fii nii. jëf ci xalaas comme ni nga ko waxee rek ñi fi teew bari na lool. waaye hmm. mbégte la ñuy am saa su nekk lu ñuy ñëw fii nii rek ci plateau bi rawatina émission bi nga xam si bu waxtu yu jotee ñëpp koy xaar. Hmm. tey nag xam naa ni am na yu am solo yoo xam si andi nga ko. waaw tey la àjjuma njeextalul ayu bës bi moom daanaka day tàng jër. dañ koy tëjaal la masaale ko. <laughs> mais wuy ma. Mhm. le premier septembre. Hmm. dama lay invité fële ca euh, Diamniadio. dafa xew xam nga marché marché marché d'intérêt national. Mhm. xam nga ko. waaw maa ngi koy dégg. waaw ki nga xam ne moom mooy directeur u SIMIC SA sama sama frère la mooy Mohamed Abdou Mbaye. Mohamed Abdoulaye mbay waaw. Mhm. frère la sama xarit la ñëwoon na fi temps RFM matin. Mhm. waaw def lancement wu marché bi la premier septembre. incha allah dama la ciy invité marché bu ama am solo la nag. Hmm. waaw yee marché bu doy waar. Ah, marché bi foofu dañ fay dañ fay denc. produits agroalimentaires yi xam nga comme par bu gaa yi bayee ba pare. Mhm. Euh, yàpp yeeg oh dégg maanaam bay kii sax. ko bay nag soble yeeg. xam nga maanaam yi ñuy bay. surtout soble si. lépp lu ñuy bay. Mhm. dañ ko fay denc. Mhm. dañ fay denc jën dañ fay denc yàpp lépp dañ ko fay denc marché bu moderne bu yaatoo yaatu kenn am na capacité wu quinze mille tonnes. macha allah ba pare gaaru gros porteur gis nga sànni ñëri fi mu nekk nii. Hmm. borom fruits yi léegi dootuñu dugg Dakar. foofu la ñuy yem am na gaar bu mag a mag a mag loolu xam naa ne moom loolu moom man maa maa yor seen seen i mbir. dinaa ci ñëw ci biir semaine bi di nuyu bu baax a baax a baax a baax monsieur Mbaye mi nga xam ne moom mooy euh, le directeur général di ko ziar bu baax waaw marché bu mag la daal hangar yaag chambre froide yaag foofu moom faa ñu dem fa yow. kii Saalum jam ñaajo la nekk. jam ñaajo waaw. Eh, baax na. ñu ngi bu baax wuy ma. Mm-hmm. Saliou. paas. dañuy dem seeti borom cheveux naturel xale yu jigéen nañ déglooti. <laughs> non kaa benn affaire xam nga bu hmm. njëkkoon dañ naan góor ñi ñooy dóor ñu mais léegi jigéen ñi dàq dóor ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp. day kii. Hmm. ñetti tuur la yor. jaara la tudd Amina la tudd maam Ami Samb la tudd day gëmloo jigéen ñeen dafay commandé ay cheveux Chine wala yooyu quoi. Hmm. jox leen benn numéro ndek numéro ba leen jox numéro la moom ay numéro yu bëri lay yor comprendre nga. ba gars seen ay xaalis ay millions. mu dajale ko dem jënd leen fii ay siwo 1000 ñoo ñu bañ porté plainte ñu jàpp ko jugé ko tëj ko un mois génnaat na dellu te la mu ne lu doy waar a ngi noonu déglu. xale bi dafa tijji presque trois groupes sax benn group bi Chine na benn groupe bi Turquie mais day dugal bagage à chaque fois di ko jëlee partout ñun rek on était victime parce que yàgg na ko di ko def mais si ñun lañ ko feeñalee da ngay commandé yónnee sa xaalis comme vente en ligne mais on pensait que elle était sérieuse après ba bul yi ñëwee rek ñun xaaj bi ñu bëri si la ñu soo parce que dafa ñëw nañu cheveux la muy indi ay vidéo xeyal ñu insister demande ko les vidéos son la tout wan nañ ko au du tribunal ñu insister mu ne cheveux naturel la cent pour cent affaire yi durée bañ defee commande yi bul bu nekk mu ngi ko doon génnee trois mille francs or que bañ demee ba tribunal nekkete bul yi ñu ngi doon jal mille cinq cent ñu dem ba si biir mu yàgg trop sax ñëwut si leen ko plainte fay transport en même temps rek mu ñuy teg arsenal buli ñëw nekk te buli synthétique la de un benn camerounais moo ko jaay te da doon wax Chine la ne parce que sa se nomme Amina aloo que tuddul jaara tuddul Amina bañ taxawee tribunal maam ami sàmm ñu ne ko lu tax nga tudd jaara maam ami Amina mu ne carrément sama turu maam la te Amina boobu muy utiliser ñaari numéro yi daf ne Amina mi ngi Chine alors ko moom en personne mooy Amina mooy jaara mooy maam ami sàmm ba pare tudd beneen boutique boo xam ne newul sa boutique Bali Spice la si bind mu ngi Instagram si la joxe Bali Spice boobu la nekk di publier ak yeneen ñoo xam ne ñi ngi si réew mi ñu koy defar pub en ce moment bañ ko tëjee prison ba mu génn en ce moment bañ ko tëjee prison ba mu génn dafa génnaat jël lien groupe mi di ko partager ñeneen ak ñeneen pour ñu dugg intégré si groupe am mu continuer di def même chose même numéro yi fu mu ne soo ko bindee sa danaa la waa jaara la Amina la ndakaar gii la ne woon Maris léegi rek daw na Touba elle avait dit Amina mi ngi Chine te moom mooy Amina mooy jaara soo ko bindee nga gis ne danaan la noo xaaral dinaa ko wax jaara léegi rek dem nañ ba si biir turbinal dem nañ ba convoqué ko mu wax lépp effectivement nangu na ni moo jël suñu xaalis somme bi yëpp nangu na moo ko jël parewul pour fay mais ñun lu ñu gën a metti mooy loo xam ne fay neen avocat fay neen lépp dem neen fépp fu ñu xalaat ne loi bi dee ñu jàppale mais dara mais xale bi dafa mel ni dafa am ñeneen ñu nekk ci ginnaaw parce que yow munoo def loo xam ne mi ngi ne lemm ci réew mi nga ñëwaat dem di publier di jaayaat jël suñu xaalis suñu bénéfice yëpp di ko jaayaat en ce moment di si def ay bagage ñun preuve yëpp leen am dina am yenn preuve yu ma la yónnee mais problème bi nu ma la ko mën a tënkalee rek elle est dangereuse elle est vraiment dangereuse devant le tribunal sax ñëpp jour boobu dañoo waaru yàq na rek millier vente en ligne parce que ñun ñëpp dañuy def vente en ligne mais dañ koy teg si yoon mais xale bu mel nii moo tax réew mi yàqu te en ce dëkkatul Dakar dafa daw dem nekk Touba te da doon wax day jàng tribunal bi ba ñëwee procureur na ko yow ban école ngay jàngee xamul sax école bu muy jàngee lépp dil boo xam ne la da ko teg contre sa famille yaayam doon complice magam bu jigéen leen mujjee bañ koy jàpp il fallait ñu téye magam bu jigéen ba pare pour mu soo ñëw loolu yëpp wax nañ ko tribunal soo waxee mu naan la mi ngi fii mi ngi fii mi ngi fii di dawloo nit ñi te mi ngi nii génnaat tëdd na un mois génn continuer di arnaquer les parce que ñun am na dënnu ñu nekk ci groupe am ñu seetlu ne mi ngi publier ba pare di wax ne jaara la tudd Amina elle continue de faire les mêmes mais réew mi ñun xamatul fan lañ war a dem. dégg nga. Hmm. dañ dañ ciy ñëwaat ci semaine bi. Hmm. dafa bari. mais lii dama cee jàngate ñaari mbir paas. Hmm. bi ci jiitu mooy eh, jigéen ñi koy jox. Mm-hmm. am nañ ci benn côté bëgg lu yomb vente en ligne bi dëgg la am na ñu koy def ñoo xam ne ñu ngi koy jaarale ci yoon. Mm-hmm. mucc ayib. ñoo mm-hmm. si eh, wóor na da leen di xool rek xam ne lii nii tey bu fekkoon ne antuwul sax di nga xam fan ngay jëm ak ñoom. waaye dëkk bi dafa tas tas tasaay boo xam ne si am na loo xam si boo koy def. Eh, xam nga yow sauvé fi ñu koy jaay. bu fekkee jigéen ñi la dëkk bi daanaka fépp dañ koy jaay te ñoom xam nañ qualité yi bëgg duñ jug doxal seen bopp dem ba fan koy jaayee. waaw mais xam nga wala ñu jox ko ku wóor koo xam si mais xam nga nag chevaux yi fii d' accord mais tamit gars yi jënd en gros ay bitim réew moo gën a yomb waaw moo gën a yomb mais te ñëpp ay revendeur lañu waaw nga xam si ñoom ñooy andi foofu noonu installé ko fa di ko jaayaat bu ñu waxee ak ñoom peut être leen koo jële foofu moo gën a wóor est ce que xam nga ni si kii ni am na kuñ ci yóbbu 7 millions moo toogal foofu dina dinañ ci ñëw ci semaine bii yaayu yaayu maam Amie Samb mii dinañ ci ñëw sërëm bi moom ñetti tur la yor tur yi bëri la yor te nag ay ay tur yu sell la yor nag loolu li ma jaaxal ah, mënoon naa xool zaal mhm. ma ne zaal <laughs> zaal zaal xalaas bi daf fi jàlloon démb mhm. am benn femme bu fi ñëwoon expliquer ne dafa divorce ak jëkkëram mhm. te li waral divorce gi mooy jëkkër ji genre toppatoo wu ko xëy na ci benn côté benn côté dañoo signé ñoom ñaar yi affaire yooyu noonu quoi ñu sëy ba benn moment am ay problème considéré wu ko mu ñaan baat bi mu ñaanee baat jëkkër ji bàyyi ko dem takki jabaru frère am maanaam jëkkër ji frère mu bokkal papa. comprendre ma li nga wax de. ñaan ñu bokk bàyyi. waaw. kenn ki fasa jabaram dem takk jabaru keneen ki. jabaru ki mu bokkal bàyyi. waaw loolu la ndaw si wax. xalaas bi mu waxee nag bañ jàll ko démb jëkkër ji moo tontu. jëkkër yi tontu ki mu di warseel ñëw na ci bi mu koy bi bi ñuy bëggante ñoom ñaar pas bëggante sax parce que xam naa ne takku mbokk yooyu la takku arrangé yooyu noonu mhm. ndax moom nekku fi te bëggoon na ko toppatoo yaayam ñu am kuñ ko proposé kañ ko proposé ne moom daa am ku muy génnal mu bàyyi mu sedd far yàlla kii nag mu doon sëyal dégg wax jooju ay mbokk lañu kii fexe ba buruxlu ba ñu takk ko mhm. léegi nag problème yi démarré nag ci ñoom ñaar yu sew yeeg mbirum xaalis yeeg yooyu. mënta ñàkk ba nag affaire ak kalaate moom nag am na lu mu wax du ma ci egg moom moo ci eggal waxam mais takk jabaru frère moom neen du ci wax. Hmm. waaw. frère bi mu takk mi ngi bi mu takk jabaram mi ngi dund ba tey. mi ngi dund moom nee na loolu du ci wax. du ci wax kay. élément bu gudd la nag yu gudd sax laay wax. Hmm. déglu première partie bi. seqoon nañ sëy dama leen di nettali fa mu commencé ci tàmbali bi sama yaay mu ngi àllaaxira fu mu toll nii man maa ngi bitim réew sama yaay moom kese moo dëkk mu ngi woon ak sama doom récupéré naa sama doom andi ko fii pour defar ay kayitam sama yaay kese dëkk mënatul dëkk moom kese mu dellu suñu kër famille mu fa delloo jubóowul ak ay sëram mu am ay coow ay wax te bi mu fay dellu ñàkk pexe moo ko fa tax dellu mën a ko léegi seetal ku la neex koo xamante ne doy na la di nga mën a déggoo ak moom yow ñu takk ko comme saa mu mën a nekk ak yow mu dem seeti ji sama benn doomu maam maam la ndijaay la ci moom parce que daf dama ko wax mu ne ma xaw ma parce que moom dafa ma jàppee man bi muy dund dafa jàppoon ne du ñu waxee mu ne ah man de ibaadu laa ba mu demee ci kooku mu wax ak kooku daal na ko sama sa doom bii bëgg naa may ko diw bëgg naa ñu xamante bëgg naa nàngam nu woo ndaw soosu jox ko sama numéro nangam nangam ñu waxtaan ma ne ko ndax am nga koy génnal balaa ñuy wax dara mu ne ma waaw ma ne ko kon lii du yëfu jullit waxal ak say waajur nga ne leen am na koy génnal ba pare ñu pare ci loolu kooku dem wax ak ay waajuram ne wax loolu ba may nañ ko jabar léegi nag ndaw si leen woo démb moom moo dem mu dégg loolu mu dem ci samay cousine ne leen may leen ma diw may leen ma diw boo leen ma ko mayee ma géré ko may leen ma diw may leen ma diw fekk boobu dafa bëggoon placer parce que dafa nekkoon ci say ñu jiiñ ko njaaloo jiiñ ko yàq biir ba muy génn kër jëkkëram boobu te am na kooku ñaari doom démb mu ngi wax naan ñaari ak ay doomam laa ko abandonné am na ak kooku ñaari doom mu daw dem seen kër famille ñoom ñu rawale ko yóbbu ko sama kër ndijaay léegi mu dégg li may defal sama ndijaay boobu ak li may defal njabootam ak li may def ci biir famille bi sama ndijaay boobu dafa siiw mu ñëw feeñu fexe fexe fexe fexe fexe musul teg tànkam ci kër googu suñu kër famille mu ñëw ne dafay weekend si am na ci sama benn cousine boo xamante ne sama turandoo yaay la kooku moo dem wax ak sama yaay daal di ne ko kii de nee na diw la bëgg mu ngi ma ci topp di ma sonal sama yaay ne ko ah noppi léegi sama yaay bi muy xëy di ndékki mu ñëw fekk ko ci taabal ba muy ndëkkee commencé di wax ak moom sama yaay ne ko yow yaa ngi ne da nga bëgg diw nangam nangam est-ce que dëgg la mu ne ko dëgg la kay mu ne ko boo fexee waxu ko bu ma takkee bu ma nangamee mu ne ko boo fexee ba diw takk ma dinaa la toppatoo ni mu waree mu ne ma kii de nee na bu ma fexee ba nga takk ko dina ma toppatoo comme ni mu waree ma ne ko moom moo la wax loolu mu ne ma waaw ma ne ko kon bu fekkee moom moo la wax loolu te nee na dina la toppatoo ni mu waree bu la neexee suba suba suba takk leen sëy bi sama yaay ne ma déet defal ndànk il faut ngeen xamante sama beneen cousine bi moo ko jox numéro moo jox sama yaay numéroom mu envoyé ma ko ndekete ñoom intérêt moo leen doon dugal ci man ma woo ko ñu waxtaan ma wax ko lu dul dañ ne ko man nii ak nii lii ak lii lii ak lii bi ñu waxtaanee loolu ba wax ba tënk ba teg yàlla mi dara tawul def sama yaay jékki-jékki daanu feebar léegi moom il était convenu que moom ak yaayam man dama waroon a ñëw juillet Sénégal léegi nag ci lañu waroon a gisante sama yaay feebar janvier xam nga juillet ak janvier sorante na mu tëdd feebar ma ñëw Sénégal ñeenti fan laa def sama yaay gaañu moom rakku yaayam di sama cousinu yaay moo doon nekk ak sama yaay di ko yëkkati di di ko yëkkati di teg jour bi nga xamante ne ñu ngi maye benn ci sama cousine yi sama tante boobu nga xam ne tantaam la it moom moo ñëw ne ma dama bëggoon ñu daganal sa ñu daganalaleel sa diw sa diggante ak diw nangam nangam ma ne ko taluma ko mu wax a wax ma ne ko déet taluma ko man eh, sama yaay a ngi nii tëdd feebar talaguma ko mu forcé di forcer di forcer ma ne ko léegi pour bëgg lu ma neex sama yaay ma ne ko boo leen demee wo boo leen demee boo leen ko waxee sama yaay bu fekkee bëgg na amul problème sama tante bi dem tiim sama yaay mu ngi tëdd feebar munul dara mu topp waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa wax sama yaay ne ko man moo su ma yàlla reyul man nitu nitu dëgg nitu parole la dam je tiens à ma parole lu ma wax dinaa ko def te nañ xaar parce que ñu ngi ne dañ ma war a opérer te kii gis ngeen li mu dépensé te amul te dafa nekk ci ay problème daan gis ngeen li mu dépensé xaarleen ba loolu mu topp ci déedéet nangam nangam déedéet waaye nangam nangam nangam nangam sama tante bi mu ngi dund te mun na seede lii may wax ba ñu demee mu wax a wax wax sama yaay daan kon ah kon boog ayca noonu la sëy boobu demee dama ko takk tey ma xëy sama yaay gaañu ci guddi gi xalaas pareegul de hmm. déedéet ba tey leeralagul de da koo takk tey xëy yaayam gaañu hmm. déggul lu stop ma dëggal li sama yaay wax ma toog muñ ma nekk Sénégal def naa fa ñaari weer nekk fa nekk fa nekk fa nekk fa nekk fa ma gis jikko ndaw si ci saa si amoon na xaalis bu boo xamante ne dañ ko joxe woon le lendemain ci suba si sama yaay ne ko ah man dey soxla woon naa ku ma defal ay ñaan ndax dama xamul mu ne am na benn paa bu mu xam paa bi xam naa turam ak yëppam mu woo ko wax ko mu ne ko ah kii de feebaram bi nangam nangam da trente cinq mille pour mu ma ñaanal ko ma yëkkati xaalis jox jox ko trente cinq mille guddi gi sama yaay gaañu paa bi delloo ko xaalis bi mu ne ma diw delloo na ma xaalis bi ma ne ko téye ko le may xaw ma le surlendemain ma laaj ko mu ne ma ah yoratuma xaalis ma ne ko ndax lan mu ne ma jeex na ma ne ko fu mu jeexee yow alalu ko dee ma ne la téyel ma nga dem lekk ko sama xel gën a ñaaw ñoom xamuñu woon ne kii fa mu nekkoon njaaloo lañ ko xamoon nañ ko sax laay xamoon nañ ko sama tànt bi nga xamante ne mooy loolu xamoon na ne kii njaaloo lañ ko jiiñ mu waat weddi ne du dëgg njaaloo lañ ko jiiñoon sëyam bu njëkk bi ak yàq biir sama tànt bi semaine bii passé laa ko ne yow yaa ma tooñoon mu daan ne xamuma ko woon ma ne ko kii nii la demee ci sëyam bële mu ne ma ah dañ ko laaj mu ne du dëgg ma ne ko te dafa ñeme sëriñ nga xam ne sama yaay dafay dee ba pare nga ngeen dugal ma ci te man nekkuma fi xamuma ko ñu pare ci loolu femme bi lu ne lu bon mu ngi ko doon def du ku baax yaradiku na réew na nee na dama ko bàyyi sama appartement mu ëmb ma dàq ko appartement bi appartement boo xamante ne ay preuve laa yor ñu ngi fii preuve yooyu nga xamante ne moom laa yor que ne moom wax naa ko ne ko man xamuma ndax yaa ngi foofu xamuma nekkoo foofu bu damay obligé su ma woowee sama frère boobu muy wax pour ne ko yóbbul ma lii demal defal doxal ma lii demal defal ma lii am na yu ma bàyyi ci samay kayit mu ngi ma bàyyi ci kër gi ma ne ko defal ma double bi comme saa ma jox ko sama frère bi bu may toppatoo li jël kayit mu mën a ñëw parce que yow doo fa toog parce que dafa dem seen kër toog foofu te teewul chaque weer li yàlla di def dama doon woo nit mu jox ko xaalis mu ne bi mu amee ñaari weer laa ko abandonné chaque weer ma yónnee ko dundam yónnee ko léppam avant ñuy yegg foofu nan la sa baay di feebaree sama papa tëdd feebar ñu ne dafa AVC muy mag ma topp si di ko lijjanti di ko faj man ak sama benn mag bu nekk tamit bitim réew mu may topp di ma laaj xaalis di ma laaj xaalis te balaa ma fa doon jóge joxal yàlla seede na ne ndugaloo naa ko loo xamante ne mun na si dund ñaari weer saaku ceeb sax bu bees tàq dama ko fa bàyyi te amoon te saaku ceeb bi jeexul ci benn nit ndugal ko lépp bàyyil ko argent de poche dugalal ko courant bi ñu defee loolu mu continuer di ma roppat li yàlla di def léegi li nga xamante ne foofu la doon jaar ci ci sama xarit yi ak ci sama yenn nit yi xaalis buñ ko doon yónnee donc am na trasabilité loolu mun nañ ko prouver mu may topp di ma woo di ma woo di ma te dolliwaatoon naa ko xaalis dolliwaat ko xaalis te boobu si lay doog a jóge Sénégal di ñibbisi ñibbisi fii bi muy kii mën a ko écoute ma wax ñu yónnee ko mu may laaj junni pour mottali ordonnance am mu ne dafa dañ ko jox ordonnance su quinze mille francs mu jënd dix mille francs mu manqué ko cinq mille francs te du dëgg ñu yónnee ko vingt mille francs ma ne ko nag vingt mille francs yooyu bu yeboo na nga ko korkoral ba weer bi dee li desoon ci weer bi xaw ma une semaine la xaw ma sept xaw ma sept jours la xaw ma huit jours xaw ma dix jours ma ne ko bu yeboo ñeenti junni yooyu na ko korkoral ba weer bi dee amatuma lu ma lay yónnee te taluma la parce que sama baay laa tal parce que dafa feebar mu envoyé ma vocal ne ma say vingt mille francs téye ko kenn du ma may di ma jéppi say vingt mille francs téye ko waaw man kenn duma may di ma jéppi sa baay nga tal téye ko loolu rek motifu fase la xalaas nee na loolu rek motifu fase la hmm. doy na tout cas li mu leeral bari na waaye ba tey daa am lu mu leeralu. léegi nag xam luy problème bi. Mhm. li xew fan yii nii nga koy gis ci réseaux sociaux yi. Mhm. naa la toj nga appartement bi yóbbu ramassé bagage yi yóbbu. Mhm. naa la nga bagage yi jël naa sama jaase gorote naa bagage <laughs> yooyu moo xew de. ak takkal la wujju nga def loolu. waaw waaw am na nag boo xam te ne nag moom gars yi ñu ngi koy gis ci réseaux sociaux yi. waaw nañ ci tey de. boobu du wujj. paa bi yore affaire yi di gor bagage yooyu. ay nañ ci tey. Hmm. waaw. Mbadou maa la wax lii suñu suñu micro après naa la wax <laughs> léegi. yooyu paas. léegi motif fase bi wax na ko. Mm-hmm. après tas nañu ñoom ñaar nag ci troisième élément bi. Mm-hmm. nee ndaw si dafa ramasser lépp luy bagage ci appartement bi. yóbbu ba ci ay jaaro yaayam bi yaayam gaañoo moom daal wax na ay bagage yu baree baree baree bare déglu. léegi loolu rek mënoon naa ko si fase waaye femme bi mu wax ne dama ko takk du ma leeral foofu takk naa ko wala takkuma ko parce que dañuy dem justice femme boobu noonu moom moo ñëw ñaan ma ñaan ma ñaan ma ñaan ma ba ma bàyyi ma bàyyi noonu ñu ñaan mu ñaan ma te yàlla tax ma bàyyi noonu fasewuma ko ñu dema dema dem mu ne ma wéy dama bëgg di waxtaan ak yow di nangam nangam comme ni ñu meloon nangam nangam parce que gis na léegi su ma woowee wala man dootuma ko woo message laa koy envoyé mun gis ne su ma woowee dinaa ko ne ça va ça va pare ci euh, lan la ma ko dara dama jàpp wala nàngam jàpp sama ñàmbur léegi mu ne ma waaw dama bëgg lu xew nangam na ma ne ko soxna si dafa am rancune bu des ci man rancune boobu nag buy dina deñ mais du léegi lay deñ fu mu toll nii mënatuma nekk di wax ak yow comme ni ma doon wax ak yow ñu nekk comme ni ñu doon nekkoon di wax téléphone ak di nangam nangam loolu c'est pas possible bu rancune boobu dañee nag mun nañ ñu ndànk-ndànk ñu commencé waat mel ni ñu meloon amul problème mais laa laa laa soo bëggee di wax man téléphone di nangam nangam naan may nekk di wax loolu sax yëfu naa fekk la xaw ma lan mu toog deux jours woowaat ma ne ko yow da nga yaakaar mbir yi ay kaf la wala caaxaan la wala nu mu demee noonu léegi mu ne ma écoute sama bëgg saay bu ma la woowee di la jot soo ma woow suma suma la soxlaa woo la wax ak yow su la soxlaa mën a wax ak yow wala nangam nangam nangam nangam waaw comme nag nee nga mënul nekk loolu il faut ñu ut solution waaw parce que loolu duma ko nangu xaw la nag la ci la li yàlla di def mu ne dafa ñaan baat ma ne ko bismillah may ko baatam bi sama papa gaañoo ñu pare ci wax ji pour man pare na ak man léegi nag mu ne dafa ëmb idda bi lislaam dafa ne ñaar temps de jour la temps de nangam boo ëmbee sa idda mu ngi ba keroog xale bi di juddu bu fekkee dañ la may baat tey wala nga ñaan baat tey fekk da nga ëmboon suba nga wasin sa idda jeex na ci suba si bu feebaree ma koy continuer di yónnee xaalis bi te bi ma koy wax ne ko xaw ma ndax yaa ngi tëngee xaw ma ndax foo nekk boobu ma koy jox li mu dundee xawma fu mu nekk li ma réveillé mooy dama ko jox xaalis ay le vingt-trois pour mu fay ak dundam teel ko jox xaalis bi mu ne ma waa suñu yegee si digg weer wi est di ma joxaat xaalis ndekete kër gi apartement bi sax fayu ko woon ba le quatorze xaw ma ci la ma doon laajaat xaw ma lan xaalis bëgg ma laajaat xaalis ma ne ko yow maa ngi la jox joxoo ma reçu ne fay nga kër gi nii rien joxoo ma dara da ngay <laughs> incha allah mais lën damay gontu. mais nga xëy ñëw non en fait dama damaa bëgg yow nga ñëw nekk ci ci ci ci kaa yi yow léegi kaa la bëgg a kaa laa bëgg nga nekk nga nekk wutkatu kaa comme man. ëpp naa def nga bàyyi ay bonjour mesdames et messieurs bonjour bienvenue dans votre édition du 13h. yow yow dafa classique kaay fii ah fii moo ko yor. Mbadou du dégg nga de. dégg naa bu baax waaye ndaw si li mu def dafa am ñaar yu ci am. Mhm. Euh, benn xam nga Sénégal moom li ñuy baaxoo. Mhm. xam ma nag diine koo xam déet mooy sa jëkkër moom bu nee la fase naa la. Mhm. ndaw si en général buy dem du fa bàyyi dara fase naa la ak may ma sama baat duñ benn. Mhm. beneen bi ci des mooy leeralul ba xam moo takk kii te laaj nga comme déet xam naa loolu laaj naa ko laaj naa ko dégg nga sax wax na ko fii. nee moom loolu du ci ñëw. parce que mbir yi aussi bon am na yoo xamante ne nag bëggooguñu wax ko donc nañ bàyyi aussi ba mu sabablu pour wax loolu noonu en tout cas loolu la ndaw si wax. nee na waaj takk na. jabaru frère bi. waaw lu ci man di am daal. Euh, def na ko wala defu ko mais bu fekkee ne moo ko def. Mhm. rafetul. sa sa rakk joo bokkal papa wala sa mag joo bokkal papa muy dund. Mhm. ngay takk jabaram lu doy waar a ngi noonu paas. en tout cas daal. Mhm. lundi. bëgg naa nga ñëw te wax naa la ne na nga ñëw le premier ca sama sama lancement activité yi. jam ñaajo fële ca jam ñaajo. incha allah di ziar bu baax a baax euh, monsieur Abdou Mbaye liggéeykat la nag. Mm. mën naa la wax lii. 150. 17 17 numéro cas bi. <laughs> jaajëf 77 100. président de la République président ci Colobane Sande ak Rufisque yore du Fari yore président de la appel à président de la République bi nga xam mooy demande service de la carte de Dakar plateau cap la Sénégal constitution 1902 bu sama neppal ba xaw naa yàgg de la leen daa mu nekk la résidence fidèle du gouverneur général présidentiel AF yow pour Sénat Senghor Diar 1964 waaye jóge 89 Abdoulaye 2012 Macky Sall depuis 2012 mu ñam fi ñamaat ñu xaaran ba xam kii woote bëgg jot président ko kon war a door ko fan lay woote salaamaaleykum président de dana dégg dëgg dana ko dégg ci ndax dama dama namm woote pare Papalum. Mani. Mani, Papalum. Abnad of maga van die estendes. Dan ga je woord, woord, en van je vergadde. Dat doet er niet toe en dat doet man dugg naa de waaye gaaw allo allo. ma maa ngi waxal gaaw li waral sa woote bala ma lay coupé. léegi sama yaram dafa tàng stades namoon naa la. ma ne namoon teewuma dama ne. ah yaa ma dem. ndeysaan waaw